Samba Gaye maa maa ngi lay fay soxna Ndeye nga nekk porte-parole bu coalition Dundu nekk euh, membre ci alliance des candidats au fichier jugé inexploitable soxal wàllum parrainage pour élection présidentielle bu 2024 déjà lan moo tax ngeen tëral alliance bu ni mel. waa waaw jërëjëf soxna Ndeye Comba comme ni ma la ko waxee sànq ci tubaab maa ngi lay sant di la nuyu ak di la jaajëfal ci woo bi nga ma woo pour ñu waxtaan pour vraiment gindi nit ñi ndaxte bi processus électoral bi xewee ba léegi wax ji bëri na lu nekk ni ñaa ngi koy dégg euh, li tax nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu juddal kuréel bi muy ACFI muy alliance des candidats au fichier jugé inexploitable dafa tolloog na ñun bi ñu demee suñu di def suñu parrainage kenn contrôlé wul suñuy parrain et du ñun rek euh, ñi nekk ci cas boobu neuf parti lañu donc bi ñu waxee ni toog leen di ngeen ñu déglu ñu toog parce que aussi ay démocrate lañu ay am nañ yar ak teggil mais bi ñu toogee ba àjjuma dégguñu conseil constitutionnel ah ñun ñu toog waxtaan suñu biir daal nag jot na ñu def benn kuréel boo xamante ni dañuy lëkkaloo pour wax opinion nationale ak internationale li xew donc ci la ñu dem buntu conseil constitutionnel def fa benn point de presse pour wax nit ñi li xew parce que nit ñi dañu war a euh, dañu war a xàjjale ki nga xamante ne dafa dem parrainage ñu contrôler ko ni ko jàlloo wala am nga loo war a mottali wala ki dem parrainage ñu ni ko sa dossier matul ak ki nga xamante ni kenn xoolul parrainage am parce que nag loolu mooy li nga xamante ne mu ñun moo ñu gën a metti dañu taxañ comme des malpropres xooluñu li nga xamante ni tey moom mooy sunu parrainage mu nekk nag loo xamante ni ñun dañ ci sonn liggéey ci ñun tamit ñun du ñu bàyyi noonu dinañu lëkkaloo toog parce que on a des devoirs comme tout un chacun et la démocratie aussi c'est le fait de donner à tout un chacun ay devoir ñun dinañ jug nag wax pour nit ñi xam li xew parce que wax ji bëri na pour rétablir la vérité et la réalité. est-ce que am ngeen yaakaar ni seen euh, démarche bi dina aboutir quelque chose de positif. waaw je pense que yàqin ak yaakaar moo tax ñuy xeex parce que dañu jàpp ne Sénégal dëkk démocratie la. Euh, li nga xamante ni mooy éliminer candidat ci élection dañ ko xayma code électoral wax ko arrêté yi wax ko mais amul fenn foo xamante ni wax nañu ni que fichier inexploitable dafay xañ nit parrainage wala day tax ñu invalider la donc nag dama ci tubaab day nekk un vide juridique loo xamante ni législateur bi xaymawu ci dara ndogalu ci dara vide juridique nag su amee dafay profiter ci nga xamante ni moom la ñu tooñ muy ñun donc ñu rafet njort ni le juge constitutionnel dina ñëwaat xam ni ah lii dañ ko waroon saytu te saytu wuñu ko et mënuñu invalider sur des bases yi nga xamante ne dañu légère bu fekkoon tey dañu am ay doublon interne wala ay doublon externe wala ñu ne yéen da ngeen a frauder wala joxe leen caution wala wala wala dinañ ko nangu li ñu mënul nangu nag mooy li ñu teg parce que dañu nekk ci àll bi ay weeri weer ay semaines yi semaine pour ut ay parrainage sonn ci ne serait-ce que par respect à ces centaines de Sénégalais qui nous suñu parrainage dañ ko war a saytu ñun loolu kese la ñuy laaj. Mm-hmm. li ñu leen jox nañ ko xool ñu wax ñu lu ci baax ñu jël lu ci bon ñu xam ne amuñu ko en tout temps tout ñu toogaat liggéeyaat jàpp suñu jàmbur. Mm-hmm. mais liggéey ba sonn kenn saytuwu ko kenn parampàccewu ko kenn kenn caytuwu ko aussi dafa naqari ci xool parce que dañu jàpp ni li ñuy seet du suñu capacité à excel wala erreur la ñuy xool ci fichier mais dañuy seet li nga xamante ne moom nga dem recruter ko muy travail boo xamante ne dañ ko def voilà ñu gis la aussi euh, Samba Gaye coow li bari na ci fichier électoral bi am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu demee gisuñ seen tur ci fichier bi gis nga tolle bi mu jur ku ci mel ni sax professeur Mary Teuw Niane koo xam ne voté nga voté waat ak sa euh, numéro électeur et tout euh, nga dem ñu ne la sa tur nekkul ci fichier bi naka nga gisee aussi mbir moomu nga xam ne actuellement dafa jur coow. vraiment. waaw soxna Ndeye Comba question bu am solo nga may laaj parce que loolu tey mooy lu lëmbe Sénégal je pense que amu fa élection bu mës a am wax bi tollu nii ci surtout affaire parrainage ñu jàpp nag ni li xew du yoon yanuwul maanaa et dalul xel parce que professeur Mary Teuw Niane pour mi nga cité liñ ko wax ci nit ñi nga xamante ne nekkuñu ci fichier bi nekk loo xamante ni xel mën na ko jàpp ma jàpp nag ni. Ah, fichier bi ñu yaakaar ne moom la ñu nit ñi liggéeyee bokkul ak bi ñu liggéeyee parce que effectivement am na ñu koy wax ni fichier 2017 lañ koy yor fichier 2017 nag soo ciy seet koo xamante ne 2018 nga ko inscrire ah doo ko gis mooy chercher midi à 14 heures. te loolu nag su fekkee ne am na nekkul loo xamante ni yoon la parce que loolu dafa war dafa biaisé processus électoral parce que la matière qui devait contrôler le parrainage est biaisée parce que fichier 2023 la ñu war a jël waruñ waruñ jël fichier 2017. Mhm. loolu du lu xel mën a jàpp et rafetul ci pays démocratique c'est un recul vraiment de la démocratie et coow bi bëri na du ci ñooñu rek lu nekk ñu koy wax. parce que tout simplement ci li ñu yaakaar et li ñu gis mooy que yaa y a une volonté manifeste d'éliminer des candidats et de favoriser certains candidats. Mhm. parce que nag bu ñuulee dañ naan dafa ñuul bu weexee ñu dafa weex li da li xew daal dalul xel te bu ñëpp bu ñu ko bàyyee nii fu mu ñuy jëmee du neex kenn. Hmm. loolu laa ci euh, conseil constitutionnel nekk kuréel goo xam ne pratiquement am na rôle centrale ci élection présidentielle yow tey jii en tant que euh, sénégale candidat koo xam ne daal euh, am nga ay ambition présidentielle ban bët ngay xoolee conseil constitutionnel bi ñu am ak taxawaay bi actuellement. waaw maa lay tontu sànq ci tubaab ma ne la xëy na foofu dama koy def ci ñaari tontu parce que conseil constitutionnel xëy na li war a liggéey mi ngi koy war a liggéey. mais balaa may agsi ci moom jugement am damay wax aussi ci informaticiens yi leen di liggéeyal euh, ñu gën a yokk seen kaaraan seen taxaw pas seen tax ñu gën a yokk seen xam-xam parce que fi ñu toll ci Sénégal tey deux mille vingt trois informatique dafa nekk la nga xamante ni ñëpp dañ koy fooy waaw ñun bi ñu ñëwee par exemple fichier bi ñu ko ubbee amul dara lu ñu mën a sikk waaye bi ñu koy di ko injecté seen logiciel la am problème loolu informaticien war na ko mën a lijjanti. ci ko mënul lijjanti comme candidat bu nekk da nga naan booy ñëw ànd ak sa informaticien ñu may informaticien boobu mu lijjanti ko maintenant ci conseil constitutionnel fenn laa leen di ŋaññee mooy comme ni nga ko waxee sànq ci tubaab mooy li ñu doon waxtaan ci biir Ousmane Sonko je pense que foofu dañu xaw a ànd parce que Ousmane Sonko tey ku nekk xam na ne depuis ñaari at une volonté manifeste d'éliminer un candidat moo am. xam nga de qui qui veut noyer son chat euh, son chien l'accuse de loolu nag du yoon ci dëkk mel ni Sénégal où inclusivité la ñu la élection bi ñëpp dañ ko war a bokk parce que ñun ñëpp ci constitution dama bëgg a briguer suffrage yi war ñu ko may ma dem ba xañ ko ma sàmba donc kumba ndey kumba am ndey ak kumba amul ndey daf fi war a jeex parce que Sénégal ñoo ko bokk et bokk dañ koy àndandoo ñun ñëpp ku nekk li nga ci am ñu jox la ko. Hmm. est ñu jot a gis dal na xel euh, pour ñu wax ni élection yi dina am ci transparence waaw xam nga cin na naree neex suba xee xeeñ li ñu gis dalul xel parce que bu fekkee ni tey processus euh, contrôle de parrainage bi ak processus euh, inclusivité bi yëpp dafa sooxe mais relation de cause à effet lay dem soo dooree ci loo xamante ni baaxul loo xamante ni dalul xel la ngay dal xel te alors que élection dañ ko war a teg mu leer depuis le processus électoral ba bi ñuy dugg ci urne yi dugg ci urne yi rek moo war a nekk secret lépp dañ ko war a teg xam lan la ñi koy bokk di ko saytu xam lan la damay anticiper ci benn question di nga ci agsi mhm. ba ci tey ki nga xamante ne moo nekk ministre intérieur bu fekkoon dañu bëgg a jubal war a fa nekk parce que munoo nekk membre vraiment fondateur membre d'un parti nga nekk ci vraiment bien positionné ni yaay yaay yow yaay yaay jiite élection yi loolu dafa mel dafa am par parloo bu ñu bëggoon nag élection yi leer dañuy jël une personne neutre comme ni ko ko yeneen président yi defee woon koo xamante ni bokkul fii bokkul fële li am mu jaarale ko ci digg bi ku gañe mu ne la yaa gañe ku gañe wu mu la gañe woo mais boo jëlee koo xamante ni ci yow bokk day nekk li nga xamante ni moom la tubaab di wax conflit d'intérêt parce que mënoo nekk juge ak parti dans une élection ce n'est pas possible. Hmm. ci les des euh, ci processus électoral bi euh, ban taxawaay la conseil constitutionnel wala am plus euh, pour yow Samba Gueye. waaw ñun de ci taxawaay bu war am ñu koy xaar ci benn taxawaay euh, droit bi nga xam ne dañu ko xañ mooy euh, bañ a seetu suñuy parrainage bañ ko càmbar mu ñëwaat ci ndax nag tubaab nee na il n'est jamais trop tard pour quelqu'un qui veut bien faire et je pense que tey li nga xamante ni foofu la war a sukkandiku mooy que cas bi nga xamante ne ñun surtout moom lañu moom la ñu am nekkul cas boo xamante c'était prévu par le juge électoral c'était pas prévu par le conseil ñu jàpp nag ni ah jude jude juridique su amee ça doit nous profiter et seet dans la postérité naka la ñuy defee ci code électoral bi cas de figure bii ñu am bu fekkee ni parrainage bi nii lay continuer pour les années à venir. kon Samba Gaye ñu ngi lay en tout cas remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. waaw Ndeye Comba maa ngi lay sant di la gërëm yéen moom cant ak ngërëm yéen la ñeel disponibilité yu noonu la yéen journalistes yi ak ñun benn lañu yéen vous êtes le quatrième pouvoir liggéey mucc ayib ngeen di def di wax nit ñi dëgg donc su ngeen ñu leen jox seen temps waxtu déglu leen et saa rek suñ ko yëgee nañ lu ñu lu voilà ñuy fàttali ni euh, Samba Gaye yow yaay porte-parole coalition Dundu Bi euh, bokk aussi ci alliance des candidats au fichier jugé inexploitable ñu lay remercier bu baax a baax Samba Gaye jërëjëf